jour vous un exemple lan la état di donner renseignement lan la état doy renseignement ak information pourquoi état di am ay RG c'est parce que l'information est capitale dans la gouvernance tey yow en tant que président de la république boo xamul li xew ci dëkk bi noo ko yore boo xamul li xew ci yeneen réew mi noo koy yore mais comment tu fais pour avoir l'information mais tu dépenses l'information a un yow boo nekkee maire de Dakar tey tu gères 19 communes 2 millions d'habitants nga mu ne yore Dakar taxamoo li xew Dakar tey tu te lèves en tant que maire de Dakar nga ne dafay désencombrer euh, l'avenue Ponty tu penses que da ngay xëy rek songu ambulant mais chaque maire de Dakar a ah, trouve les moyens de s'informer trouve les moyens d'avoir une petite administration qui lui permet de mesurer la de sa ville à temps réel mais ça ce n'est pas les papiers ce n'est pas dans le budget C'est avec les fonds politiques. Mais mais, mais, y tellement de choses qu'on ne peut pas dire dans un État. Pourquoi, pourquoi personne ne commande la question de ces gendarmes qui sont morts Pourquoi la gendarmerie n'en parle pas Pourquoi l'armée n'en parle pas Pourquoi eux-mêmes l'État ne font pas de commentaires il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça qu'il est important, quand on mène un combat politique, nous savons fan la C'est pour ça que quand on a attaqué Khalifa sur l'angle des fonds politiques, et ça ça s'est aggravé avec casson ko Sonko dama ne affaire u suibote affaire u jigéen ñu ko doon wax fii Sénégal yuuxu dina jëf fu ñu ko foogewul mais justement justement dans ce dossier la ñu profiter benn yoon aborder ko euh, gis nañu euh, des auditions yoo xam ne des euh, avocats de Sonko ñu ko doon demandé mhm. am na ñu ci accordé bu ci mel ni le cas de MC Niass mhm. qui dit avoir des audios des audios mhm. au doyen des juges yooyu aussi est-ce que ce dossier là au-delà des tensions que ça a nar mhm. ñu yóbbuwaat fu sore bon on a l'impression que ñoom il veut caler le temps du procès sur le temps politique sur le temps des élections présidentielles parce que encore une fois beneen arme bu ñu yor la pour liquider un adversaire mais ils oublient que sénégalais boo gisee ñu jóg c'est parce que li nga def Karim def ko xalifa nga bëgg a def Ousmane Sonko les sénégalais jóg nañ mais sentiment bi gën a metti ci loolu mooy plus histoire bi di avancer plus ngay am ay découverte plus ngay déglu yenn yi plus ngay déglu question bi ngay wax mooy tout ça pour ça kon Sénégal lii moo tax ñu am fi 14 morts lii lii moo tax ay ay ay ay ay milliards yi milliards yàqu fi lii moo tax sunu sunu fébrilité force de sécurité ñu établir ko comme ça publiquement c'est-à-dire plus histoire bi di avancer plus ngay am gàcce plus ngay rus et plus nga war a xam ni que defaraat toogaay jot na. defaraat toogaay jot na et exigence bi ñu am ci choix suñu gouvernement jot na parce que quoi qu'on puisse dire Macky Sall c'est quelqu'un qui qui est arrivé qui Macky est devenu ministre en 2002 pas en 2000 en 2000 il était DG de Petrosen après du ministre en dix dix ans est-ce qu'on a suffisamment de background pour devenir un président donc exigence yi am par rapport à nos choix ce qui nous gouverne exigence bi bi ñëpp am pas seulement les politiques mais aussi la presse su les débats qu'on sort sur les sujets qu'on met à l'avant je pense que jot na kenn ku nekk suñu def sa introspection mhm. et buñ ci jógee pouvoir comme opposition comme décideur comme informateur ñëpp xam ne que ce pays là le danger peut venir de n'importe ou mhm. mais en tout cas li am solo mooy que tout le monde doit se dire que à un moment il faut que tout le monde se réew mi fii lañ bëgg mu jëm et qu'il y a des choses maintenant, on a mu fi amati et que chacun prenne ses, ses responsabilités. C'est ça. Alors, euh, l'autre chose euh, sur le plan judiciaire, nous euh, l'emprisonnement encore de Pape Alenia, bien euh, révoqué euh, son, euh, son contrôle judiciaire. Effectivement, il y a des règles qui nous régir. Contrôle judiciaire, bi, euh, le parquet a donné des explications pour wax Euh, fan la ñu jaaree ba emprisonné waat ko euh, violation euh, règle yooyu la boobu itam yenn généralement opposition di ngeen jàpp ne peut-être c'est un dossier politique mm. est-ce que vous le confirmez ak ban gis-gis nga am ci mbir mi non en tout cas déjà à la base man je félicite la presse mm-hmm. parce que parce que j'ai vu une presse ñu ñu booloo solidaire am yéen a jàppale seen collègue mm-hmm. parce que Pape Alé c'est un journaliste d'investigation mm-hmm. un journaliste d'investigation mën nga ko rey mun nga def loo neex mais du la mës a jaay ay mais Abdoulaye Coulibaly bi mu bind fii compte et la aussi bi ñu ko nee Fodé dafa ne dafa def ko farci mbëri c'était plus irrationnel aujourd'hui il est il est du gouvernement mm-hmm. donc je pense que on ne peut pas dire à Pape Alé te condamné pour un document donné on a vu d'autres personnes ñu ñu ñu mm-hmm. pense que situation Pape Alé c'est un combat contre la démocratie tey contre la liberté d'expression maintenant lépp sa revient à une même problématique mooy la problématique du troisième mandat le président Macky Sall bëgg yaakaar na ne que bu bëggee am troisième mandat il peut faire taire tout le monde wala il peut faire en sorte que mu am benn unanimité pour que ñëpp nangu ne que dafa war am troisième mandat troisième mandat bi c'est pas une question de droit pas une question de de de de de moral par rapport ak fi Sénégal jaar. morale dans la politique. oui ak li ñu fi jaar en 2012. cest dire que qu'on a eu autant de morts qu'on a eu autant de points de crispation uniquement sur contexte boobu ne. Mm-hmm. c'était un contexte de troisième mandat de cas bloquants et tout. Sénégalais yi ils ont spontanément rejeté ça tey yow nga ñëw Sénégalais yooyu je veux faire la même chose lan moo war a tax Macky Sall war a gëm ni que Sénégalais yi fi nekkoon en 2012 ils ont tellement changé que la ñu nangu woon démb mën nañ ko bañ tey. c'est impossible. Et Maxal doit savoir que, au-delà la personne de Pape Alé Niang, c'est le pays qui est, qui est en train de, de mettre en danger. Et tey bu bu bu poser acte bu mel nii je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités li ñuy xaar de la presse et de tout un chacun mooy que les gens soient sur les principes. ñun politique xam nañ à quoi s'attendre ay Macky Sall et on est en train de mener le combat qu'il faut des fois on peut même nous reprocher de mais comme ni mu la ko waxee nii xeex sën la. loo jot sànni si biir en tout cas ñun de on est prêt à mener le combat contre Macky Sall et incha allah ce combat on le mènera et on le gagnera. d' dernier point honorable euh, bu ñuy jeexalee parce que temps bi euh, les comptes euh, mm. son rapport sur la gestion des fonds force Covid. Mmh. Euh, de mille milliards. on parle d'une contribution des citoyens sénégalais. Mmh. à hauteur de dix-neuf près de vingt milliards. Mm. les partenaires euh, financiers euh, mm. li ñu si déployé yëpp tiital bi ñu tiital askan wi yëpp njàqare bi nga xam ni mm. euh, attaqué na askan wi en tout cas askan wi dund nañ ko pendant des mois jamono boobu euh, on suppose en tout cas. des des voleurs présumés on va mmh, dire les mmh, choses nekkoon di saax-saaxe alalu askan wi gis-gis bi c'est la la c'est la crédibilité de l'État sénégalais qui s'affaisse donc ça moom pour man loolu la crédibilité état Sénégal moo moo moo daanu d'un coup et je signale deux points rouges benn ki nous donne raison mooy que ñun quand on a voulu débattre budget l'armée on nous a bu leen wax ci waxu armée kenn du wax budget armée alors que quand le président a voulu crédibiliser lii il mm-hmm. allait chercher un général en activité ñëw indi ko donc tey moom Macky Sall il a humilié mm-hmm. l'armée sénégalaise Et je pense que ne serait-ce que pour ça, l'armée doit prendre ses responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu crédibiliser un processus au Sénégal, on est allé chercher les militaires. En quoi faisant Notamment, responsabilité quand on a voulu crédibiliser les élections, on est allé chercher des généraux. Oui. Nous n'est que le ministère chargé les institutions. Quand lui, il a voulu crédibiliser son dialogue, il est allé chercher le général Nian à la retraite, mm -hmm. oui. Donc aujourd'hui, c'est la première de telles dérives. C'est la première chose. La deuxième mooy que mooy que man teg naa fële affaire xaalis affaire détournement parce que bëri na ay scandale bu mm-hmm. ñu fi doon lim du fi jóge mais li ma gën a métti si affaire bi mooy que euh, des familles ont vécu des drames mm-hmm. pour man ñi ñi mel ne man ñoo xam ne dund nañu bitim réew ñu tàggale sa benn mbokk te mënoo ko gunge te mënoo ko gunge je pense que Covid bi tax na des familles ont enterré leurs morts dans des situations mhm. difficiles am na ay nit yu ñu yu ñu ñu ñu jege wala yu ñu amoon si ñun yaakaar wala ñu ñu ñu nekk suñu biir xol ñu génn àdduna te gisuñu leen. am ñu ñàkk ñu ñàkk.